janook askan wi président Bassirou Diomaye Faye daal dina fësal mbëbëtam mu di jëmmal indépendance bu justice mu di yoon moom boppam fii ci Sénégal ngir yegg ca loole njiitu réew mi daal dina xamle nii dana amal ab waxtaan diggeem ak bépp acteur bu sekk secteur bu justice. muy avocat yi muy magistrat yi muy greffier yi muy ñeneen yi nga xamante ne dañu leen wax ay auxiliaire de justice te seen liggéey jeexee ci yoon wala muy tàmbale ci yoon. waxtaan tamit ak citoyen yi nga xamante ne bu yoon dalee seen kaw lay dal dinañ am yoon gu gën gi nga xamante ne am nañ ko ci fan yi kon yoon dina gën a jubbawaat ak askan mi nga xamante ne ci turam lañ koy joxe. président Faye fas na yéen itam lal ab politique de bonne gouvernance mu di jiital njub ci di ñuy doxalee ngir loole mu fas yéene indi ay coppite yu fasantikoo. lii di guerre danañ ko xeex xeex gu tara tara tar ci réew mi ñi nga xamante ne tamit dañoo nekk ci réew mi di liggéey. waaye ñuy wëlbatiku nag lempo gu ñu war a fay ñu bañ ko fay ñooñ tamit dinañ ci taxaw taxawaay gu wër dooleel ñi nga xamante ne fépp fu ñu fekk luy yàqu te muy yàqal Sénégal dañ koy wax muy ay lancer d'alerte fu rapport génn tey ci Cour des comptes génne ci nag askan wi dinañ xam rapport bu lu ci ñii nga xamante ne dafa am ñu am ñu jël alalu réew mi di ko def ci seen tur ñeneen ay xarit wala ay mbokk bu ñu feeñalee seen bopp duñu leen toppee dara mu dee politique de bonne gouvernance boo xam ni euh, képp kuy jiite fii ci réewum Sénégal danañ la laaj ban anama nga doon gérer alal askan wi